gis clip bi nice mu bëgg après dugg ci biir direct bi apprécier la. ayca waaw. salaamaaleykum. <laughs> eh maa ngi ziar waa plateau bi di leen waaw man la Adama di ziar bu baax waaye ngi si <laughs> jàmm. bu baax a baax a baax Adama ñu leen nuyu di la ziar. baxaaw baxaaw maa ngi koy ziar bu baax sama xarit bi dama gis affiche bi rek ma gis baxaaw ndeysaan moom damay dugg mm-hmm. parce que baxaaw barke Serigne Babacar si nekk na nit koo xamante ni garant nit ku baax la billaahi wallaahi wa taala yi nit nit ku am nit ku la ku gëm yàlla la man ba ma gisee ma ma ànd ak moom ak ak yan billaay wax na ma conseil yoo xamante si nii mhm. ah mosuma koo dégg ci kenn mu wax ma ko barki Serigne Babacar Si ndeysaan ndeysaan mhm. mu nekk nit ku baax nag koo xamante nii ku dal la ku jullite la ba ma ñëwee dan maa yaatal xam nga dugal ma seen biir mu nekk nit ku baax billaay ku baax la wóor mhm. la yàlla mais Adamo loolu dama ne woon dinaa ko se waaw waaw ah, maanaam clip bi nu mu ko gisee ak son bi mu ko génnee ni ko àdduna bi apprécié naka nga ko gisee yow dama ne la ba mu ko génnee taj laa ko ko wax ne ko lakk nga àdduna bi parce que moom parolier la bari na ay son yooyu gis Sénégal te dul wax rek yu bëri moo koy bind toog fi mu toog barki Serigne Babacar Si son yu bëri yaa ngi koy gis biir Sénégal mhm. moom moo dul génn di ko wax mais ma ngi ci biir mhm. lu waay di def boo bëggee mu am solo da ko ciy dugal barke Serigne Babacar si nit ku baax la. Mm. lépp ci sutura la koy def àndul ak dara ak wax boo ko gisee ni mu mel nii. Mm-hmm. noonu la teeyee daal. du yuuxu. Mm-hmm. ku am respect la ci nit. billaahi. Mm-hmm. Ah, aussi bi dafa neex. waaw Sénégalais yëpp ko jël en charge man mi def naa senensi bi te ñëpp a koy def ñëpp nañ dem def senensi parce que paroles mhm. yi ñoo garaaw xoolal paroles yi mhm. mais li mu mooy moo am Sénégal ba pare ba pare ñëpp dañ cee gis seen ñëpp dañ cee gis seen bopp waaw mais dañuy liggéey parce que liggéeyalaate moo leen sonal nit day am dara duñ la ko yéenee bëgg mu yàq loolu leen sonal loolu moo leen metti moo tax nit ñëpp jël soo bi a au sérieux mhm. am doole dafa am doole wax baxaaw kenn du moom barke Serigne Babacar si baxaaw du nit billahi Mhm. nit ku baax la. d'accord. war mhm. na yàlla. <laughs> Adamo merci man daal dama da waaw. merci si si si bi. Euh, waaw maa ngi moom moom maa ngi koy nuyu di ko ziar moom moom wax dëgg yàlla dama gis affice bi rek ma daan ne Bamba kii moom bu dee baxaaw la direct la. damay dugg am lu ma seete Sénégal yi teg ci seen bët ndax ma nekk naa moom xam naa ban saaru nit la. te moom du ànd ak nit pour na mu mel. Mhm. wala succès ba muy am wala lu koy nit ñi di xoole déedéet nit day ñëw mu dugal la ci boppam ba pare di la jox ay conseil di la jox lu am maanaa. loo xamante si nii boo taxawee ci yoon boobu. kenn du la gën a yow tamit nit ku baax la. kenn mm-hmm. gënu ko. ba pare ñëpp dañ ko dañ dañ ko xamee ci nga xamante ne moom mooy Viviane xamoon mu nekk lu rafet. lu Viviane xaritama léppam la ba ma ñëwee la ko wax Viviane barki Serigne Babacar si baxaaw ko gënal am ci àdduna bi. parce que baxaaw dafa jàppale Viviane lu mm-hmm. Viviane di def ma nga fa. Mm-hmm. billaay ay nelawam du tey ay lekkam lu ne Viviane. macha allah ndeysaan. ndeysaan moom daal moom ak Viviane mën naa ne kenn mënut a dem bàyyi sa dafa dëggu nag dafa dëggu de. ànd bu dëggu la. waaw Adamo waa waa amin amin amin maa ngi lay man tamit maa ngi lay gërëm maa ngi lay maa ngi lay gërëm maa ngi lay gërëm Adamo maa ngi lay gërëm ci appel bi eh, di lay laaj di lay laaj benn question ndax ko ci maa ngi laaj sama question est-ce que conseil yi ma la joxoon yaa ngi koy jëfe <laughs> ah. waa ah, baxaw la baxaw la baxaw la baxaw la. waxoon ci laa nekk parce am na a dafa am loo xamante ni mënu yow xam nga suñu waxtaan xajul ci télé bi. dëgg la mais est conseil yi est conseil yi ma la joxoon est-ce déedéet dama bëgg nga tontu ma ndax conseil ya ma la waxoon nga waatal ma ne da ngay def conseil yooyu ndax yaa ngi ci wala déet waa wala déet loolu laa bëgg a xam. barke Serigne Babacar si maa ngi ci yoon bi te ku seetaan aadama moom bu njëkk di ko seetaan léegi moom mi toog ci télé bi war naa xam ne aadama <laughs> lay ñaanal yàlla. ndeysaan maa ngi lay ñaanal conseil yaa ngi wax maa rek yow. Mhm. bu dee mën nga sa xol yàlla na ko yàlla mottale si ah. dërëje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. la ma lay waxoon rek àdduna bi nekk nii. àdduna bi ñu nekk nii. dafay jeex ala mhm. kulli xaal. Mhm. te balaa moo balaa moo trop tard nañu baarante ak suñu biir ñu ñëpp te xam na ñu ñoo bokk ndey ñu ñoo bokk baay. dara jarul yenn yi. nit ku nit ku nit ku nit ku ma déggal nga ndax bañ ci waxtaanee. Mhm. woo nañ ma ñu bari woon ma naa ah, dafa mel ni sa booy bi ah. changé na de ma ne leen fa la jëm incha allahu rabbi te yàlla na ko te yàlla na ko yàlla moo si daraje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg dëgg yow yow loo ma wax ma def ko baxaaw yow man ak yow danoo yow nit nga. gën ñëpp nga amul benn xaar yàlla Sénégal ku yaa gën yaa gën ñëpp wax nii. ba hmm. xool ko ci bi man nit du ma seexal pour ma wax. kenn nit ku baax nga. yaa gën ñëpp. Mhm. waaw yàlla na yàlla defal jàmm kontaan naa. amiin amiin amiin amiin amiin jërëjëf Adama kontaan nañ trop bu baax a baax. Ah, alors surprise la <laughs> de. surprise <laughs> moom bu moom. dëgg <laughs> yàlla surprise la. kontaan naa ci appel comme jot nañu waxtaan ci lu euh, benn yoon lañu gisante man ak moom. mais mhm. bi Viviane demee tournée. ndeysaan ñu jotuñu xamante mais ba ñu fekkante fa ñu toog parce que bërëb la bu am invité ko ci événement bi. Mhm. ba ñu waxtaanee man ak moom euh, dafa nekk nit bi nga xamante ne dégg na la ma ko wax. Mhm. te yaakaar naa ne dina ko jëfee incha allahu bi ndax. àdduna bi amul solo. Mm-hmm. yàlla namm na si doomu aadama. Mm-hmm. sutura yàlla namm na si doomu aadama. Mm-hmm. teraanga yàlla namm na si doomu aadama lu ne. donc rek may ñaan yàlla mu sàng ñu sutura fii ak fu ñu jëm. parce que mu yàllaa ñu koy teg. ñu koy defal. jaam bi war na ko mun defal jaamam. te moom nee na mi ngi si ay projet maa ngi koy xaar projet yooyu nag moom laay xaar. <laughs> comme ni nga ko waxee comme ni ci ay projet si appel bi. aussi tamit li comme ni mu la bëgg euh, wax rek mooy euh, comme euh, nee naa artistes yëpp dañoo dañoo dañoo rafetlu ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy kii bi moom mooy. Euh, sama maamu sama téléphone yi loo ci bëgg. <laughs> lu mu samay téléphone yi kii moom ginax bi <laughs> filim ginax. <laughs> comme ni mu la ko waxee euh, nee naa la clip bi dafa génn. Mm. nekk lu nice. Mm. gisoo Adama moom moo woo di di apprécier li nga xamante ni moom mooy. Mm. moom mooy affaire bi nu mu nice loolu la lay def ci yow. xam nga man moom laay expliquer. Mm-hmm. yàlla dafa wax fa xaaloo li maa yuridu ma may xool lu ma neex ma def ko ci doomu aadama dëgg la man sama bopp ni ma jàppee sama bopp laa jàppee ñëpp mm-hmm. ni ma jàppee sama bopp kii dañ may laaj nag laa mun def ba seetaan émission bi ban lien laa la mun a jox ni ngay dugg bi nga envoyé ko ndeysaan même deux ma yónnee ko mu xool mm-hmm. comme ni leen koy waxee seconde rek ni YouTube bi laay def feeling Dakar. c' est mm-hmm. leen ma àq yoon mais bon. mi <laughs> ngi insister di may oo bëgg na ko seetaan mais xaw ma nu may def. ndeysaan macha allah euh, feeling kii laay def ah. Feeling Dakar. Mm-hmm. may ma rek de. comme ni nga ko waxee Adamo mhm. tamit ñu koy euh, ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax parce que lu mu def yombul euh, nekk ba fële gis ne comme ni mu ko waxee dama gis affiche bi rek euh, dugg ne il faut moo woote ndax baxaw ak moom ak def lu baax bi nga xamante ni gis na ko ci moom mhm. yaakaar naa ne yaakaar na loolu mbégte la mbégte la bu am solo baal bi rek mhm. moo yónnee ko ñi ko xool parce que xam naa ne ñu ngi ma àkk nag de ngeen baal ma àkk nag de wax naa la tooñkat laa moo nekk nii <laughs> voilà merci beaucoup. baal leen ma de. mu ngi noonu comme nee naa la instant yi yaa xew. ñëpp musuma xew ñëpp la ñuy la seetaan. musuma xew moo tax ngay toog plateau. musuma xew laaj li yooyu. musuma xew. <laughs> Mhm. ayca ñu commencé ñu ñu continuer nga ne léegi. Mhm. waaw nga ni Adamo ah, bi ngeen dajee lan nga xool lan li ma ko conseillé rek moom mooy nit la ba nga xamante ne na waxtaan nañu man ak moom. Mhm. waxtaan bi guddul gàttul ci man ak moom la yem. yàlla ñu seede woon. yaakaar naa ko dina ko jëfee. te nee ci yoon boobu yàlla ko yàlla moo ci li si daraja Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mais aussi tamit bëgg nañoo ñu waxtaan tuuti rek sa relation ak Viviane comme Adamo moo nekk ba